ziar ak magal ak bege wa axlu lamb yeb monu lamb yeb ma ngi ni di ziar di ñaanal jamm di ko sax ci yeen naan yalla na jamm bëgg wax yeb xam xaju si vidéo limu ñuma bëgg remercier yeb monu ma leen man dal message bari na trop trop trop content na gis na fi ngeen ma tek ndax nit amul lu dul bisam waaye grâce à góor production da ma kay sant waye nee naa leen kenn du groupe whatsapp yi nga xamni ñoo ñoo tax ñu xam ma tay buñ ma xamé grâce à Sénégal ñom suñu lamb ay bar TV ah ak groupe fans club yi fans club yaa ndey faat sama yaay ji ah bi ah ak sama artistes yi nga xam ne tarkaala macha allah kenn du ñoom waaye sama mbëri ndax nee naa leen ñun ay waxkat kese lañ ñu demee ba xam ñu mbër yee tax damay félicité lépp lu luñ ma defal si làmb mbëri laa koy delloo mbëri ak amateurs yi ndax lépp ñooma waaye sant naa ñëpp gërëm ñëpp du ma tudd kenn nag ndax su ma tuddee rek damay juum mais gërëm naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaye taalibe Maam Fallu bi ma décoré moom góor production ju ko ñoxo Baye Samba mention spéciale kenn du yéen yàlla na jàmm yàgg